Adama Mbengue maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay soxna Adama Mbengue nga jiite ONG Action pour les droits humains et l'amitié di yëngatu ci wàllum àq ak fu doomu aadama rawatina migrants yi euh, tey ji ban analyse ngay def ci phénomène bu émigration irrégulière euh, gannaaw sensibilisation yi ñuy def tout le temps euh, terewul ba léegi phénomène bi mi ngi fi gone yi ñu ngi dem tous les moins son bon pour dem Europe même su fekkente ni amuñ visa. waaw dafay conforter rek lu nga xamante ni rapport bu IFAN président defoon buñ doon wax ni que euh, boo jëlee ñeenti ndaw ñett yi dañuy bëgg a dem tukki que sa soit muy yoon bu nga xamante ne bu euh, bu régulier la wala yoon boo xamante ne c'est irrégulier donc loolu noonu rek lay andiwaat loolu nag lu tax loolu ndaxte ndaw yi amatuñu espoir pour ñoom bu ñu toogee fii nii duñu tekki ndaxte migration moom wala question de mobilité moom boo ko saytoo rek tekki la maanaam da ngay def ba mën a ñëw am liggéey boo xamante daal dina tax ëllëg ñu ñëw mun la respecter mun la jox cër te mun a yor sa bopp. d'accord kon da nga bëgg a wax ni euh, maanaam euh, état wu Sénégal moo échoué euh, ci mbir mi gis nga ni tamit pour sax taxawu ndaw yi ci wàllum entrepreneuriat pousse leen ci côté boobu état wu Sénégal am na ay kuréel yoo xam ne teg na ko di ay ANPEJ ñu ngi koy dégg ay DER pour financer ndaw yi ñu soobu ci wàllum entrepreneuriat yow kuréel yooyu déjà est-ce que gis nga ni am na njëriñ amul. njëriñ. waaw xam nga euh, kuréel moom bu ñu teg doo ñëw rek wax ni amul njëriñ dina am njëriñ waaye nag ban aspect lay amee njëriñ wala njëriñam fenn nga koy nattee muy résultat yu muy am si terrain. kon ko ba léegi nii migration bi mooy wàññeekul dafay gën a yokk ndaw yi malgré dispositif bu nga xamante ne Union européenne def na ko ak Frontex bu ñu teg nii nga xamante ne pour ñëw dissuader loolu noonu maanaam pour réprimer lii di migration teewul ni eh, chaque fois ñoo ñu xool ba yan yoon la ñuy jël pour contourner yooyu noonu ñu teg dispositif yooyu noonu pour jéem a dem donc loolu rek dafa lay wane ni que ah résult euh, kii résultat yi mooy lay wan ni ñoom dañoo lajj laj bu ñu laj nag lu mu koy expliquer mooy leen d'abord booy wax ñaata direction ñoo fi nekk. bëri na trop direction yooyu noonu ñoo ñuy wax guichet unique mais guichet unique lu ko gën a matérialiser mooy leen nga boole kuréel yooyu yëpp tënk leen ñu nekk benn ndaxte lu ñuy liggéey benn loolu daf lay tax yow sa dépense bu ngay dépense maanaam seen fond de fond de euh, fonctionnement bu ñuy bu ñuy euh, jëfandikoo loolu dafay gën a wàññeeku lu ñu nar a fay électricité wala lu ñu nar a fay bâtiment bu nga xam ne dañ ko loué loolu noonu gën a wàññeeku te seen liggéey dafay gën a efficace mais loolu defuñu ko dañoo ñëw disperser ces structures la bien vrai que il parle maintenant de guichet unique mais guichet unique boobu noonu lu koy gën a tënk daal moom mooy regrouper leen loolu mooy benn beneen bi mooy lan moom mooy da nga fiy gis am na ay kuréel yoo xamante ne moo ñu fi nekk fii nga xamante ne ça doit être normalement politique comme conseil national de la jeunesse ndooyu bu ñu gisee ni que seen kuréel yooyu noonu nga xamante ni association yeeg euh, kiiwu gox goxaat yeeg yëpp ASC yëpp ñoom ñoo si war a représenté nga dem zone boo xamante ne da nga fay gis bu gën a sax dafay am benn mais ñu gis ni ndaw yooyu noonu sentir tuñu seen bopp si kuréel yooyu lu tax parce que kuréel boobu noonu may joxe exemple ñoom seen mandat ba mu jëlee fin c' en deux mille dix neuf deux mille dix neuf ak léegi ñaata at kuréel yooyu noonu euh, événement xew na fi muy événement dégg ñu wax si dara chaque jour nga dégg ay ndaw yoo yi maanaam si mbëkk bi duñ si wax dara chaque jour jafe si yeneen dëkk wala fii nii Sénégal duñ si wax dara donc lan mooy njëriñu kuréel boobu est ce que dafa nekk kuréel boo xamante ne ñu koy représenté nekk si kaw ñoom ñooy si jëriñu ndaxte ñooy si ministère ñooy si direction wala dañ ko def pour sénégalais yëpp wala seen euh, jeunes yëpp comme nu ma waxee woon sànq soixante douze pour cent de la population active ce sont des jeunes dañoo am population bu jeune boo xamante ne moins dix huit ans la ñu war a dooleel jeunes yi ñu war a mettre en avant mais defuñu bu nekkee ne réalité wu jeunes yi xamuñu ko chaque fois dañuy laaj boo yóbbee sa doom bu feebar hôpital nga yóbbu ko nga ñëw ba si médecin bi ne yow yaay consulté wu duñu gis saafara bi te saafara boobu noonu duñu bu ñu gisul góom bi duñu indi saafara bi loolu daal mooy tënk daal si wax euh, lu tax kuréel yi malgré couleur yi malgré réflexion yi malgré ay experts si xalaat ak xalaat et ba léegi ni mënuñu trouver benn solution pour parer lii la la cette question de mobilité là voilà ñu gis ni actuellement Adama Mbengue am na lu ëpp euh, pratiquement cent cinquante sénégalais yu bloqué euh, ca Agadez di wax état wu Sénégal na leen dimbale euh, ñu ñibbi si boobaak léegi nag mi ngi xaw a bëgg yàgg dossier bi xam nga si lu bëri parce que yaa ngi leen di suivre yàgg na est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun tuuti ci kawu sénégalais yooyu le waaw ay sénégalais yu nga xamante ni ñu si ëpp dañoo nekkoon Algérie demoon daan seen doole ñenn ñi dem nañ ba. takk si ay jabar ñi seen kër ñu koy yónnee fii nii seen dëkk eh, si si seen dëkk yu nekk fii nii voilà ñoom nag dañoo nekkoon si ñu si bëri dañoo génnoon eh, comme contrôle de routine rek malgré que amul fii Sénégal eh, ñu xool seen carte suñu gis ni ñenn ñi dafa expiré ñu ramasse leen boo ñu ramassé dajale si seen prison Algérie dem ba si frontière Niger bàyyi leen foofu joxuñu leen dara sànni leen foofu loolu nag di violation grave des des des droits humains loolu nag lu weesu loolu ñooñu ñu dem dem dem lu tolloog ñeenti at ñeenti weer autant pour moi ñeenti weer yooyu nag si lañ fo nekk nekk fenee di kan OIM d' abord si désert bi lañ nekkoon ay Asamata après Arlit léegi ñu dajale leen fenee di Agadez ñu toll si cent soixante quatre ñu nga xamante ñoo nekk si fichier OIM lu weesu cent soixante quatre yooyu am na vingt ak huit yu nga xamante muy vingt huit nga xamante ni daal inscrire guñu si fichier OIM ndaxte dafay jël temps si procédure maintenant nag dañoo si diggante ñeenti weer chaque fois autorité sénégalaise mooy ak Nations Unies chaque fois dañuy naan dañ leen di andi bu ñu leen joxee espoir bu ñu dugg si bus ba war a jël vol ñu ñëwaat na leen euh, dañoo am souci technique si avion boo xamante ni amaana si lu ñu wax moom mooy euh, autorité yu nga xamante ni les représentants yu Nations Unies OIM ñoom ñoo ñëw fay vol charter boobu noonu loolu nag andi njàkkare le 19 bi weesu. boñ leen ko defaatee muy ñeenteelu yoon bi ñoom mënatuñu woon continuer seen bopp maanaam ñu mujj a def mooy dem manifester woo autorité bu fa nekk muy ambassadeur bu nekk Niger d'après vocal yi nga xamante ne moom la ñu yónnee vocal yooyu noonu xam naa dinaa la ko yónnee nga déglu ko bu fekkee ni euh, ambassadeur moo ko wax kooku je dis que mérité wul sax nekk chef de quartier wala délégué de quartier mérité ko parce que nit boo xamante mooy nekk ci tiis si yaakare da ko war a rassurer dalal ko mais waroo wax si benn ton boo xamante ne bu arrogan bay menacé nekkul loolu moo tax ñu fay ko mu nekkul loolu moo tax ñu teg ko foofu te xaalisu contribuable moom moo tax ñoom ñu teg ko foofu même ces Sénégal de l'extérieur nga xam dañ leen expulsé seen xaalis la ñu ñëw jël pour moom mu toog foofu noonu représenté la ñooy nag jëm nañu dox feneen di Agadez ba Niamey tolloog cinq cent wala plus de cinq cent kilomètres nga bug ko dox suba si lañ doon dox ba vingt si la leen police téye ak gouverneur bu nekk foofu waxtaan ak ñoom rassuré leen ba ñoom ñu delluwaat joxaan nañ leen date muy le vingt deux suba ñoo ñu am yaakaar di lancer profité seen antenne benn appel au chef d'État di ko exhorter encore une fois mu jàppale ndaw réew yi nga xamante ni c'est des comme ñun yu bloqué feneen leen rek la ñuy demandé ñibbi si daje seen njaboot nekk fi loolu rek la ñuy demandé donc loolu moo tax daal. Mm-hmm. depuis lors ñoo ñu yuuxu ñoo ñuy wax fu nekk. mais malheureusement ces sénégalais lenn rek la ñuy demandé pour ñibbis encore une fois. Euh, Adama Mbengue état wu Sénégal ak euh, bu Espagne actuellement di discuter euh, pour ñi nga xamante ne ay sénégalais ñu sénégalais lañu nekk foofu ci Espagne te amuñ kayit ñu daal di leen indi ñu ñibbisi fii ci Sénégal lu ni mel am nga si jàngat. pour cas boobu noonu ñun lan lañ ci wax bu fekkee ni moo ñu nekk en procédure comme lu ñu wax dénoncé ko muy lu ñu séparé muy global compact sur la migration ak global compact des réfugiés wane ni que bu nekkee benn dëkk bu nga xamante ni si tënk rek moom moo nekk dëkk boo xamante dafa am guerre foofu noonu bu nekkee ni tu es ressortissant de ce pays là boo demee rek dañ la war a jox asile pour nga toog fa bu nekkee nag da nga jóge benn dëkk boo xamante ni bu stable la boo fa demee bu nekkee nekkoo une personne qui est persécutée maanaam lu nga xamante ne moom la euh, convention bi relative buy wax ci demande d'asile pour nekk réfugié bu nekkee remplir ko wala nga nekk euh, benn personne boo xamante ni bon voilà sa orientation sexuelle wala dañ la persécuté sur affaire religion et yooyu boo ci nekkul rek dañ la war rapatrier donc yooyu noonu dañ ko njàng décrier malgré que am na ay yoo xamante ne dëkk yu bëri signé nañ ko donc loolu dafay témoigner euh, par rapport ak waxtaan bu ngay wax léegi ñun lu ñu xalaat mooy leen au lieu ñuy renvoyer ces personnes là wala di leen at mais nañ leen trouver le accord bu nga xam ne état Sénégal signé woon na ko ak Espagne mooy ban accord mooy bu ñuy wax contrat saisonnier yi bu jëlee sénégalais yonoon yóbbu leen ñu dem liggéey foofu bu ñu fa liggéey comme que ñooñu fa ba dajale benn montant picc mooñ si kaw mais xel baañ si suuf lu mu yàgg-yàgg ñooy dañu bëgg a retourner léegi bu ñu demee liggéey ba am benn montant bi am benn expertise bi ak expérience bu ñu ñibbisee ñu ñu mën a ñëw chargé wu seen réinsertion état bi tamit jàpp si xaalis bu nga xamante ne Union européenne moom lay joxe pour leur réinsertion xaalis boobu noonu ñu trouvé leen si ay terrain kon liggéey nañ si ay champs. loolu ñu mun ko expérimenter fii mun nañoo nekk sax des champions c'est-à-dire des entrepreneurs jëlaat ay ndaw yu nekk fi loolu benn solution mais neewul ni da ngay jógee feneen rek comme cas wu Niger les quarante cinq yu ñëwoon dañoo ñëw ñu jox leen cent cinquante mille dese leen parce que le montant global c'est six cent cinquante mille duñ la former comme il faut duñ la kii ci entrepreneuriat comme il faut duñ la joxe six cent cinquante mille mais boo xamul lu ngay def da ngay ñëw gisaat jéem a déposer visa boo déposer visa comme d'habitude dañuy nangu sa xaalis duñ la may visa nga ñëw gis les contrebandes ñooy ñëw ne la kaay ma jaale visa nga joxe xaalis ñu jox la pour nga dem voyager wala nga jël mbëkk bi muy beneen phénomène buy répété wu donc il faut ñu trouver benn solution boo xamante ne concrète maanaam garab bu taxawee au lieu nga ñëw si feuille xoolal racine directement pour trouver benn solution boo xamante ne mooy solution bu définitive. actuellement ñuy wax tamit ci kaawu euh, Serigne Mor euh, Mbodj muy étudiant sénégalais boobu ñu te actuellement euh, mm-hmm. Tunisie parce que dañu ne da doon jàppante ak ay takku der en tout cas amaguñ si lu leer trop si occasion bi communauté sénégalaise bi nekk foofu nee nañ ñoom dañuy dund saa su ne wàllum racisme wàllum stigmatisation lu si ada mën a wax. lu ñu xam si boo ñu suñu antenne bu nekk Maroc boo fi ñëwee woon boo ñu amee woon cas bu nga xamante ne moo xewoon foofu noonu rek lu mu waxoon moom mooy dañuy dëggal ni kaaw euh, racisme moom dina am si yenn dëkk yu nga xamante ne si dëkk naar yi la loolu moom dafay am kenn du ko laam-laam même lii bii gis nañ ko maintenant nag pour cas spécifique bi ne on ñooñu nekk di collecter les données xam nga ñun moom lenn la ñuy bañ chaque fois te loolu mooy jox suñu crédibilité wax lenn loo xamante ne ëllëg nañ ñëwaat waat ñu nañu ah, lu ngeen wax ni c'est pas avéré loolu nag la ñu moytu maintenant nag benn appel la ñu lancé pour autorité pour ñu jouer pleinement leur rôle c'est-à-dire ñu dem gëstu loolu noonu envoyé directement des émissaires foofu noon bu nekkee ambassadeur wala consul boobu moo fa nekk ñu dem fa xool suñu naataangoo boobu noonu ban problème la am ñu ñëw utal ko avocat bu baax jëm ko génne ci jafe yooyu noonu loolu la ñuy xaar ci ñoom loolu moo tax ñu fay leen dafay mel ne rek comme cas bu nga xamante ne moo xawoon Canada mais qui est mu nekk benn cas boo xam c'est purement privé comme que diplomate la si saa si la suñu ministre des affaires étrangères ñëw wax bind communiqué bo convoqué lii di ambassadeur bu nga xamante ne mooy Canada bu nekk fii alors que des actes des affaires yoo xamante ni sont pas privées des sénégalais chaque fois ñu métital leen chaque fois ay sénégalais de yooyu duñ leen dégg ñu wax ci euh, benn mot loolu est-ce que dëgg la wala yoon la. cest à ñoom war nañ comprendre ni que y a pas deux sénégalais benn sénégalais te ku ñu war a gën a jàppale sax mooy ñi nga xamante ne mooy les sénégalais lambda nga xamante ñoom ñooy tax ñoom ñu leen te loolu mooy seen rôle loolu mooy seen devoir loolu la ñuy xaar si ñoom mais pas yenn problème yi am société civile moo si wax wala keneen moo si wax wala des associations yi nekk foofu noonu ñoom ñoo si wax loolu nag du dëgg du yoon te loolu war nañ ko xam ñu xaar ba ay quelques mois ñu war a kii ñuy door a def seen liggéey loolu dañ ko war a def tout le temps. Euh, léegi Adama Mbengue Adama Mbengue plutôt dernière question bi ma lay laaj mooy est-ce que euh, ci wàllum euh, phénomène immigration irrégulière bi gën a persister est-ce que yéen am ngeen ay suggestion benn wala ñaari solution. bu ngeen di jox état bi fi nekk rawatina tamit lan ngeen di xaar. ci gouvernement bu bees bi ñu jiital. Amadou yàgg nañu yàgg wax ay batterie de solution xam naa ne yow yàgg nañu invité. Mhm. yàgg nañu ñëw ay rajo macha allah def fa ay émission yàgg nañ def ay communiqué yoo xamante ni yow mu nga témoigner ni que chaque communiqué bu ñu def dina am ay suggestion wala ay batterie de solution yu teg bu ñu siy tënk rek mooy lenn gis nga euh, ces questions migratoires la question wu développement lié développement bu nekkee ni différence bu am entre les régions mënuñu ko jéem a defar problème dina am tout le temps phénomène bu ñu doon wooyee exode rural chaque fois dafay am da ngay gis koo xamante ne dafay jóge quartier kër Cheikh benn exemple rek laay joxe jóge fa ndaxte Jurbel boobu noonu dafa dee usines yi fa nekkoon nekkatuñu fa pour nga am fa jàng boo xamante ne système éducatif bi war nañ ko xool jàng bu nga xamante ne dafa waroon dëgg nga ñëw jàng mën a ñëw pare comme si comme Rwanda nuñ koy defee comme boo demee tamit euh, comment s'appelle encore di ko def comme suñu maam Mamadou Dia lu mu ko doon théoriser bu nekkoon dañ ko jëfe woon léegi nii rek am nañ solution les solutions sont là. mais malheureusement dañ koy ranger ci turaa duñ ko bëgg a suñu système éducatif fàtte naa ko ci nasaraan mm. bu fekkee ni da nga ñëw jàng nga dem ba troisième allemand yi nu ñuy def lenn la dañoo xool ni que yow ah, am nga ay compétences yoo xamante ni si yow si mécanique dañ lay tel a si lool mooy ces centres de formation technique professionnelle qui sont la qui sont professionnels ou techniques que de yooyu ñu jëm ko defaraat ba nga xamante ni ndaw yi bu ñu paree foofu noonu bu ñuy paree di liggéey da ngay ñëw di jàng di pratiquer boo paree rek yow mun nga ñëw sax entreprendre sa bopp parce que am nga expérience bi am nga expertise bi loolu mooy benn deuxièmement boo paree si loolu nag mais sa gox ñu teg fa ay structure wala teg fa loo xamante ni daal dina la sukkali ba nga toog fa booy ñëw di déplacer wu c'est pour trouver euh, comment s'appelle encore euh, des des rendez-vous d'affaires wala leneen ak leneen loo xamante ni ki naa rien à voir jëlma tukki pour sukkali wala pour mën a euh, am dara donc foofu mooy problème bu nga xamante ni moo gën a mag bu ñu war résoudre mais tant que ñu xool góom bi fan la nekkee ñu si andi ay solution en tout cas daal batterie solution yooyu noonu moo ñu fi yàgg nañ ko wax beneen bu may tënkee rek bu may jeexalee moom hmm. mooy euh, bu nekkee benn ndaw ndaw yi ñoom ñoo am problème ndaw yi la ñu war a xool c'est-à-dire teg ay politique de jeunesse yoo xamante ne ndaw yi ñoo koy càmbar pour ndaw yi ñoom ñoo ñëw xool identifier seen problème problème bu nga xamante ne jeune bu nekk fii nii Dakar bokkul ak jeune bu nga xamante ne moo ñu ngaay bokkul ak jeune bu nga xamante ne moo ñu Cap cetera ñu defee ko tamit par corporation c'est-à-dire tey jii nii un journaliste mais mënul am même problème mu jafe-jafe ak kenn koo xamante ni c'est un mécanicien ak keneen koo xam mooy nekk si beneen secteur te secteur yooyu noonu yëpp si gën jafe moom mooy secteur yooyu ñu koy ñëw di ko présider wala ñu koy jiite doo fa gis benn ndaw même assemblée bi ñuy passé weesu mais ndaw bu fa nekkoon kooku il a fallu que notre ministre des affaires étrangères dem nekk ministre démissionné pour kooku mën a ñëw un bu fi nekkoon est-ce que da ngay ñëw problème ndaw sax am du si yëg dara du si xam dara donc lu ñuy invité le gouvernement d'abord ñu ñëw déglu ndaw yi loolu mooy am jox leen des postes de responsabilité ba pare mu nekk ñoo xamante ni fa nekkee dañu ñëw fàttali réalité yi nga xamante ni moom la jeune yi di dund parce que lu gën a pire moom mooy yow ñu teg la fa am yaakaar si yow nga ñëw nekk si beneen monde wala nekk si beneen fiction voilà Adama Mbengue Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. yéen la ñuy jaajëfal di rafetlu liggéey bu am solo bu ngeen ñu def. may fàttali yow ya jiite ONG Action pour les droits humains et l'amitié plutôt leen di yëngatu ci lépp lu soxal àq ak yelleef rawatina nag àq ak yelleefu migrants yi ñu koy remercier bu baax a baax Adama Mbengue.